situation bi journée bi dafa tombek situation boo xam ne tey dafa métti jën amatul ci géej gi jigéen ñi amatuñ liggéey pêcheurs yi bu ñu demee géej dootuñ amati dara ba xale yi sax léegi ñu ngi jël gaal yi di dem Europe. donc actuellement li tax ñu tànn fii nii mooy dañoo tànn xam ne jigéen ñi bokk nañ ci ñu gën a sonn ci situation bi parce que actuellement amatuñu assez de ressources boo xam ne dañ koy jël pour transformer ko pour nourrir population yi. boo xoolee farine de poisson yi bokk nañ ci seen problème mais aussi pêche industrielle bi nga xam ne licence yi nga xam ne ñu ngi koy joxe bokk na ci seen problème loolu moo tax ñu tànn nga xam ne ñoo gën a affaire bi ñoom lay gën a impacté tey muy jigéen ñi pour jàppale leen ci journée bi même ñi nga xam ne dañuy dem jëndi jën xam nañ ne jën fi mu nekk accessible atul ndax prix bi cher na kenn gisatu ko boo xoolee tey li ko waral mooy li mu léegi-léegi mooy usine de farine yeeg pêche industrielle beeg yooyu ñoom ñëpp tey dañoo dajaloo tey pour waxtaan ci situation bi xool yan solution la ñuy proposer pour que gouvernement bi mën a changer doxalin. ceebu jën bu jaar yoon sax daanaka léegi dañuy wax ni que pour nga lekk ceebu jën bu jaar yoon Europe ngay dem parce que jën yëpp fa lañ ne léegi li nga xam ne fii moo fi nekk mooy que ñëpp xam nañ ni jën solo bu mu am ci dundinu nit. fu mu nekk nii li ñu wax mooy que léegi loolu su jën bi commencé wàññeeku même santé population bi dina ko ressentir. tey xam nañ ni surpêche ak pêche INN mooy problème bi mooy que état bi procédé ak surveillance bu gën a baax ci géej gi ba pare arrêté licence de pêche ak accord de pêche yi nga xam ne ñu ngi koy joxe beneen point bi moom mooy dañu war a carrément dindi fii usine de farine ak ule de poisson yi nga xam ne dañuy jël jën yi jël ko def ko farine di ko envoyé Europe pour dundali ay mala jàpp nañ ne loolu yoon loolu tamit dañ ko war a arrêté.